ñu ñëw tuuti ci actualité bi fi jot a am Demba Ba gis nañ ko keroog bi match bi dawalee dawal nañ football nañ ba am treize minutes mais ki nga xamante ni mooy quatrième arbitre bi dafa dafa dafa dafa ñëw ne leen yéen da ngeen xaw a kii xas leen xam nga wax leen da ngeen xaw a nuur ay golo ba Demba Ba xaw coo jóg dafa geste boo xamante ni képp kuy africain wala képp koo xamante da ngay sénégalais keroog da nga fier ci ci ci ci li nga nekk keroog geste boobu mu def ba arrêté match bi ñëpp yaakaar joueurs waat match bi mujj faa yem ba ñu mujj ko reporté naka nga gisee geste boobu mu def. waaw tey tey boo seetloo loolu ñu ko def ñu yàq match bi après ñooñu ndeysaan du ñu ay noir waaye gëm nañu noir boo gisee tey euh, Afrique kenn mënu leen génne ci loolu Afrique li ma wax rek saa su ne der bu ñuul mu ngi fépp te fu dem jëriñu fu mu dem bokk fu mu dem ñu kawee ko xëñ ne kooku def loolu muy arbitre boobu bu gisee nu mu demee koro war na ci xoolaat boppam bu baax a baax a baax tey loolu moo yàq max boo xam ne ay millions loolu yàq ci kon xam nga ne kon tey ñun du ku ñuy war laal. lan mooy der bu ñun nit la yokkal la ci gis benn max buy daw te gisoo ci koo xamante ni ne africain la. ñooy dimbali européen yëpp ci bépp côté bu ñu jàkkee noir yi ñoo leen di dimbal xool li ma la wax amul pays booy dem bu nekk ci max football te noir nekk foo wane foo bopp dañ ko fay dégg mu ngi doon lu ñuy ñaawlu nag wax dëgg yàlla yàgg na te Afrique moo gën a rëy Afrique foo dem ci bépp réew boo munti dem africain yi nga fa der bu ñuul mu ñun ay néegar lañ waaye néegar gëm suñu bopp lañ kenn duñu yàpp te boo xoolee korom ni mu demee nga xam ni am na doole waaye nag ñu ngi ñaawlu loolu di masawu moom moom di masawu tey suñu mbokk yi nekk ci bépp réew immigré ak ñun ñi nga xam ne ñun ñu ngi Sénégal tamit wax dëgg loolu neexuñu. ba ñu toog ñu toog dégg ki nga xam ne suñu naataango suñu grand frère suñu lépp Pape Cheikh Diallo wax na ci ba wax ci wax yoo xamante ni nit ñi rafetluwuñ ko parce que nee na boo xoolee ñun sax dañoo xaw a ndóo golo noo noo noo jàngatee boobu waaw nit ki li mu doon rek lay teg lay teg keneen li nga doon rek ngay def nit ñi quoi ba tax na moom loolu duma ma ci mën sori waaye na xoolaat moom fii la nekk nit day gëm moom nit day xam valeur am nit day respecté couleur am parce que tey nat defoo sa bopp yàlla la yàlla mi def moo def kee waaye porte de voix yi nañu bàyyi xel di génne loo xam si waru demee noonu mu ngi ciy dégg gaañ parce que ku war a wax buy wax day wax lu leer day wax loo xam ne nopp mun na ko dégg te kenn du ko xeeb nit des fois gis ko nag naaw ko waaye boo xewee ko waaye xëy na loolu mu wax noonu moom loolu dafa nekk ci moom moo doon wax ko waaye ñun ñii duñ ko wax parce que ñun xam nañ suñ der bi lan la suñ puma bi ay milliards la ñuy fay pour nekk ak ñun kon noir am na doole. Mhm. boo amoon kàddu yu mujj ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw kàddu yu kàddu yu mujj yi mooy ndeysaan maa ngi jaale ñu demoon ci mbëkk bi képp ku fa mënut woon dem des ci géej gi maa ngi jaale seen mbokk di leen wax di leen masaw bu baax a baax a baax a baax di leen na seen njaboot yooyu seen mbokk yooyu nekk ci géej gi des ci géej gi na yàlla xaraajana ki nga xam tamit doomam la yóbbu woon mu nekkoon xale bu ndaw doom ñu làkku ñu téye ko ni koy ñaanal yàlla daf ñooñu jéggal ko xam ne tamit xëñ na juum na waaye nit ki bu juumee rek xaw ko yar tuuti rek bàyyi ko mu nekkaat ci kii parce que xëy na famem ni ko soxla te yaakaar la amoon ci doom boobu xëy na moo tax mu juumee noonu waaye ñuy jaale képp nga xam sa mbokk des na si ndox bi ñu ngi koy jaalee boole seeg bépp immigré bu nekk foo munti nekk ci àdduna muy sama gars yi ñeneen sant naa leen gërëm naan parce que ñoom it bi coow bi amee ak lu mu demee ñoom ku nekk maa ngi koy dégg tamit gisuma leen waaye maa ngi leen di dégg te leneen ak leneen ñu ngi cekk ñu ngi koy cekk aussi nag maa ngi wax Paa Omar Cissé transitaire maa ngi koy sant di ko gërëm Moussa Daabo borom marché asalem borom piis yi maa ngi koy sant di ko gërëm Ibra Fall bi nekk ci ndox bi fële maa ngi koy sant di ko gërëm di sant ma nekkal muy Aline xam nga. a baax foofu laa woo njëkkee Aline Fall maa ngi lay nuyu di la siyaar ah. maa ngi lay jox loxo bu baax a baax. waaw moom ñoom Samba yi nag mooy ñoom Guèye ak Daas ma neen sama rapport bi xam ak ak Elmu Diagne Ela Diagne nag mu ngi France maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax. man loo di la ñaanal jàmm foofu ñu nekk Xaadim Ndiaye ñoom trompeur naati waaw di santaan nag waa Mafia CFA bu baax a baax a baax a baax di santaan Mafia CFA bu baax a baax di sant nag sama gars yi may àndal staff ñàkk jën baay ma kenn sant naa booy séeréer la billaay sant naa trop wax dëgg yàlla parce que dama koy sant mooy bu ñu xamante yàggul te xamante ne par hasard mu dëkk ba euh, Medina ñëw fii di liggéey si waaye lépp dañ koy dund day def ay actes yu rafet di sant nag daaw de mi tamit sant police soobee gars yi menuisier yi daw ko saret ban maa leen sant di leen gërëm di sant stafu ñàkk jëriñ waat di ko waxaat di sant nag caaree mbooloo gi ma nekk wax dëgg yàlla maa ngi sant mbër bu fa gën a mag ba nekk mbër bu fa gën a ndaw te ñun ñëpp sax ay mbër yu ndaw lañ waaye sant naa ñëpp jox naa ñëpp seen wàcce maa ngi jël nuyoo bi jox teg ci loxo booy ambulant ci loxo référence waaw ci loxo róon róon bangura aruna bangura waaw mooy loolu waa gaara sare di wan loo bëggee naa leen ajjana rek gis nga waaw sant naa ñëpp daal gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal waa Sandaga jaañ Modou Baye Fall boro xel ko mobile maa ngi sant di ko gërëm bu baax a baax mu ak Basirou Kouyaté ak waa Njaay bi arène nationale bàyyi ma kenn. Ousseynou sant naa leen gërëm naa leen ah, di kontaan sant teewaay bu baax a baax a baax di ñaan si réew mi jàmm corona bi li ñuy wax nag yàlla na yàlla def jàmm gaaw mu jóge bi ñu mën a commencé saison bi parce que làmb daal moo day dundal réew mi parce que xam gis nga instant yi ni mu demee xam nga da cee bokk daal. waaw sama benn boy bi toog sama cumukaay muy viandoo papam waajur dafa wàcc liggéey fan yi maa ngi koy jaale di ko ñaanal yàlla ko yàlla xaraajana yàlla na ko yàlla yërëm sang tamit du ko fàtte baabooy yàlla na ko yàlla indiwaat mu ñëwaat ci ay mbokkam Ibou Ndaw Lon Amusi ak Badou Diop Ro parce que ñooñu dañuy jouer sama carrière bu baax a baax a baax. billaahi wallaahi taalaay des na sama booy yi nag ma kenn ñu gën a ndaw ba ci ñu mag parce que Ousseynou billaahi wallaahi taalaay yëguma benn méti ndax ñoom muy a waa parce que mbër laa comme ñoom ku nekk téye sa waaye yow dafoo ko di sant waa Pàkk Kaane ah Pàkk bi waa Kolobaan gi yëpp nag waaye moom fenn Kaolack si bopp soob Touba waaw ba si caare gi ah jërëjëf loo. <laughs> gis ngeen noonu lay demee mbër muñ ci seet rek dañuy bëgg waxtaan ak yow ah, nga wax li nga xalaat ndax làmb dafa metti làmb dafa metti waaye bu ma fa jógee nag damay dugg waalo ah ziar aadama yow xam nga ma xam yow sama xol nga maa ngi lay nuyu bu baax a baax tey lii yow laa ko ma yow kese doo ko bokk kenn ah di wax tamit borom la 15 ndax Rama Sarr doomu nday ah doomu ndey gàmm doomu day xuy ah. ak euh, ñëpp maa ngi nuyu sama bàjjen maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom gis naa taxawaayam ci man di kontaan ci moom bu baax a baax ah nuyu Aziz Fashion nag boom Colobane ah boom sañ say sedd bi ñoo ngay xaar bu baax a baax ma kàggu sama cameraman bu mag bii di la wax ne la ni ma koy waxee chaque jour rek loo jaay lu ne baaxul koo sañsalul ku nekk defe naa ne bu génnee dinañ ko wax kaay kaay ñu dugal la curug waaw